loxo yi ngeen tàccoo na ko gàddo seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra Iyane Thiam loxo ngeen ni fi fekk ñëpp di ci jiital madame la ministre Zahra Iyane Thiam di suñu xarit di suñu sœur di suñu lépp nag moo sabab sama tànk yi ñëw tey ba fii ci siège bi ak permanence am bi li wax léegi day dëgg nit bu jëmee cib xare bu geesoo war a gis ay bokkam war a gis ay dëkkaaleem war a gisit ay xaritam te moom lépp lu mu sumb ñun ña nga ca bu nu gisee ak bu nu gisul moo sabab sama tànk yi nag tey te li ko waral nag lu yàgg yàgg yàgg la te moom xam na ci dara te moom yàqu ci dara bi mu ñëwee Touba waxtu wi daaw bi mu àggee sëñ Modou Mountakha dafa ko ne yow sama doom nga loolu cër la ndax sëñ bi du ko wax ñëpp te noonu mu ko waxee. noonu la nekkee kon kenn du na table loolu kon faw ngeen xam ne ki leen président tànnal day kenn ci réew mi ci kër goo dem ak ci dayoo ndax tey jii la ñu jëlal ca tànn ba mooy compétence bi mu am ak qualité yi nga xam ne mi ngi ci moom te man ma mën koo seere biir na ma ne ñun ñu ànd ak moom di campagne ci doxalinam ci doxalinam ci démarche am ci approche xam ngeen ne kilifa ngeen nekkal eh, ku dugg rek tey ci kër gi gis ni ñu ko waajale nga xam ne li xam-xam moo ko lal te gox bi nag xam-xam la soxla soxla ndaw ndaw lu sawar ndaw lu bëgg te loolu moo ne ci moom moo tax mu am kóolute kilifaam di suñu kilifa ñun ñëpp muy le président de la république Macky Sall ko foofa yaa ma fa te loola lu bari war koo waral muy fidélité ak loyauté ak jàppam mais surtout ak ak bi mu habitué président de la République pour le développement du Sénégal mu yéene leen ko nag lool indil leen ko tey kon li sëñ Sidi wax sëñ Fall wax ko man ma wax ko mooy loolu dañ ko xam xam yéene ji xam man-man ji ñu téye ko ak sunu fukki loxo moo tax ba yéen ñëpp maa ngi leen koy dénk ngeen xam ne day buñ ci àggee jàmm bu leen ko joxee seeni carte fu ngeen bëgg gox bi dem fa dem fa dana dem fu ko raw dana dem ko ndax man na ko ndax na ko yéene na ko te dana ko def insha allahu taala te loolu buñ ci amoon lu ñu leer du ñu ñëw fii di toog ci wetam candidat yi bari na te loolu fuñ ko def it bariwul wax dëgg yàlla xam nañu suñu yaakaar tas ci moom ndax yaakaar ji ñu am ci moom te am yaakaar yu ko jiitu muy yaakaar sunu kilifa yu baax yooyu di yaakaar président de la république sunu yaakaar doog a ñëw te ñooñu am nañu gis-gis du ñu juum ci seenub joxoñ kon soxna si na nga dox ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la li ngay wut ndax la ca topp muy yorin wi ak sellal gi ak jëmale ko ci kanam amuñu leen luñ ci nattam la loolu moom suñu borom def na compétence ci yow dañuy ñaan rek yàlla jubale la ak waa gox bi ba mboolem ñi fi dëkk xam li ñu am lan la téye ko dañ ko war a téye ndax yow kat xam nga ñi nga nekkal war nga leen yar war leen teggin am ci ñoom war ma fonk leen di leen jàppale guddi ak bëccëg kon yow li la war sa diggante gox bi yaa ngi koy def ci ay teggin ak surtout ci sutura kon dañuy ñaan yàlla rek ñoom itam ñu gisee ko noonu dégge ko noonu te amuñu sax ci lu ñuy nattable suñu borom gën leen a jubale ba li ngay wut nga am ko ba li nga leen yéene nga mën leen koo defal madame la ministre nee na asalaamaaleykum mbooloo mi nee na kàddu yi du gudd de ndax bool kenn du ko ñëdd te liñ ci wax lépp ci teraanga su ma ci bëggee teg leneen rek day nekk leneen moo tax du ma guddal damay seede benn rek ndax bu ñu bés bu ñu waree tontu jëf ji ñu ngi ñaan suñu borom te xam naa ne dana am te allah waaye li may wax ginnaaw bi ma leen nuyoo ziar leen di jël ziar bi ak nuyoo bi yëpp di ko teg nag ci loxo sama mag ji sama xarit di nuyu it waa kër sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni di leen yóbbante nuyoo ak ziar ci xalif bi sëñ Mo ci ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa gépp di feddal nag bu baax suñu kóllëre ci moom benn rek laay seere dama bëgg a seeral ñii nga xam ne amul leen ëpp. ndax li may def ay at a ngi nii ñoo ko bokk. ndax li may fu ngeen ko gis man ngeen a waat ne man ñii ngeen gis. lu mu wax maa ko wax. lu mu wax maa ko wax. lu mu santaane maa ko digle. lu mu digle maa ko wax. digle. lu noonu la. kazaalika lu mu defit noonu la. te fu mu taxaw gis dama gis ci wetam. kon ku ko tooñ tooñ nga ma. kon ngeen jëf nee na loolu daal lañ moon seet rek li ci des nag moom li ñu ko gisee rek amin kon ñu tàllal loxo yi sëñ bi defal ñu ñaan amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin amin amin amin yaa rabbal alamin amin amin amin